personnalité yu bëri yu teew ci kanamu morgue hôpital principal bu Dakar bile wane na dayob ki nga xam ne moo dëddu àdduna mu doonoon nit ku am njëriñ ci askanam. d' avril 2012 parce que bi ñuy ñëw ma nekk ministre de l' énergie boobu li xewoon mooy coupure électricité daan am parce que dañuy daan am problème approvisionnement bu Sénélec di mën a fonctionner les euh, euh, centrales yi donc nga koy nga yoreel euh, SAR xaalis mu ko yoreel xaalis donc fallait ñu trouver à pour ñu bañ a couper Sénégal rupture gaz daana am ci moom nga daan mujj intervenir à la dernière minute forcé ko mu dal di euh, nangu def ko rek uniquement pour intere Sénégal Sénégal mi ngi doog di perte vraiment un champion. ñu gën ko xam nag ci wàllum hydrocarbure ak entreprise waaye kii di Baba Diaw doonoon référence ngir ndaw yi. fi mu bëggoon jëmale Sénégal ci mbiru économie war na tax ba naaw les jeunes. ñu mën ko def royukaay ñi nga xam ne mooy suñu ndaw yi buñ ko jëloon bëgg a def ni mu ko defee réew mi dina jëm kanam te xam naa ne loolu rek ko ko safoon. ci wàllum social itam mu doon ci yëngu bu baax di partagé ci li nga xam ne loole la ko yàlla dénkoon na ci alal. 2012 dama nekkoon candidate aw moon xaalis ma dem waxtaan ak xaaj Mansour Mbaye ma ne ko boole ma ak ñu ma jàppale kas néew mu yóbbu ma directement ci Baba Diaw Baba Diaw jàppale ma ba sama xol sedd damay ñaan suñu borom yal na seral xolam ci àjjana. Abdoulaye Diaw ñu gën ko xam ci Baba jaw doonoon nit ku am dayoo moom nag danañ ko denc ca Thiès ca cimetière Mbambara ci wetu ay way juram ay ñoñam nag am naqar waaye fier itam ci li nga xam ne doxal na ko ci biir réew mi danañ ko gunge ci mujjantalu barab boobe ci bésub tey bi